ma koy wax Cheikh Tidiane bi jóge Paris ma nañ porter plainte ñu bind lettre ci baron des avocats ndax dafa am benn avocat ñu wax ak moom ci affaire Tivaouane pour mu dem jàppale ñoom maître Ousseynou Gueye mu d'accord ak ñun ba ñëw ba jël suñu dossier ba xam li ci dossier bi ba noppi dem ni day défendre léegi camp adverse bi mës nga gis loolu waaye ñu ngi koy xaar on verra incha allah waaw dañuy jaar ci yoon ba noppi rek de xaar nag ba xam ñi ñu yónnee ñun suñu courrier lu ñuy wax bu ñu teguwul ci yoon rek ñu boole leen ci et puis surtout waaw defee rek nag yàq yi dafa bari waaw pexe yi dafa bari mais bi ñu gën a jaaxal gannaaw nifaaqu alkufaar bi taxoon yàlla ne qul yaa ayyuhal kaafiruun ak nifaaqul mushrikiin bi taxoon yàlla wax ni ne azzanina billahi zanna suu waaye alayhim daairatu sow ak nifaaqul munafiqin yaa lan jaahidil kufaara wal munafiqin waxlud alayhim mu des nag nifaaqul kuramaai wa shurafa kuramaai wa shurafa mooy ñi ñu tudde tey sëriñ si ah di leen tudde kilifa ñoom ak ñoom la yàlla tudde alxaayiniin te inna allaha la yahdi kayda alxaayiniin waaw damay xëy wor seen bopp wor yàlla wor ñu baax ñi pexe bu ñuy tëral boo demee ba ci biir gis leen gis ci seen loxo mais ñoom it ak seen àtte xëy na inna allaha la yahdi kayda alxaayiniin waaye ñu nit am na façon bu ñu mën a seen problème ndax la tax ñu def seen mbaadoolo fii summi euh, sulli euh, néew bi ba noppi gaaw gaaw dem jël GMI yóbbu leen kër bay si Mansour ñu encercler foofa ñu laaj leen ñu ne ndax dañuy bañ mu sarchidina ne ñëw fi xam nañ ni lañu def jubul waaye am na loo xam ne ñun bis buñ ko doon faj ay gendarme ak policier duñ ko yëg duñu xam sax nu muy demee waaw nañu nag gendarme yi respecté nañu policier yi bu ñu sañoon dara du dox suñu diggante ñoom na am nañu suñuy njaboot ci seen biir waaye nag bu ñu demee ñoom itam ba yaakaaruñu lu dul fetal ay ministre de l'intérieur di leen jox ay ordre ministre de l'intérieur bu nga xam ne xamul sax luy bopp bu jógee rekk di nuroog